doomay gontu maas ko ku jàkkaarloog baat ba xam ko ngërëmal way jur gàllaaj gu dul toj la yàlla ku mu nëru tafay du la liggéeyloo kon ku baax wéttaliku ku yaru falu ku réew réer ku réy ñàkk ña gën bakkan mbaam waaye ku ko taa wàcc mu la ku jàppa sax ruu jënde ko dinay kese bu la sukkuraat ni yoo nga perte ku def sa bakkan yilimaan mu tàbbal ci jàkka joo bëggul woon a jullee kon ñu baax suñu yeboo juboo ñu bondu leen bëgg gàcceeg pénc nag yett a koy yóbbee as gor waxtaana ko dof te déggal ko ak diisoo kuy war ak lépp alali jàmbur foyee ko ndax yett yokkul yett waaye fu yett yàqoo yett fekke na ko alal yàqulug bokk waay fu bokk yàqu alal fekke na ko ay war yàqulug ànd waay fu ànd yàqu yi war fekke na ko kon ngor tool la ku gor la tool ak sa tool toogal bu lu ngooti ku la ko génne lànkal ci toolub jàmbur la lay jëme te boo xesee dugg ci toolu jàmbur te neexul boroom werante lay indi te werante jëf ju ñaaw lay taawloo jëf ci ñaaw day yàqub bokk di yàqub ànd te dañ ne ko iñaane say dono saw deewin ñaaw waaye ku iñaane say dono sa mujjee ñaaw ndax sekkare akob sekk ak baatin ci néegub xam ba ca la ñuy dëkk baatin yàlla bu ko xisee dugal ci dënn ba kaste ko ca fit wa ko war a may nettali ko yàlla du ko ca boole baatin soo ko nëbbee mu feeñal la waaye soo ko weeree mu nëbb la kon àddina damay wax ni àddina dafa laaj yett te yett yooyu lenn lu ci nekk lu luñ ci jéemul lenn kanam la jëm ñàkk gu boroom nu ngi wut liggéey kanam la jëm jàngoro ju borom nu ngi wut faj kanam la jëm ñàkk xam te nanguwu laa laaj kanam la jëm as yi ci àddina yaari asa ci am solo jeneen as jum amul solo as tafur laa as gor as ndox feeñal na sobe waaye sétalu ko as xam-xam bu boroom toogul noppiwul dina feeñalu xamadeem te du ko foog werante bu tàbbee ci pénc ñeent ko fa indi ku ñu yarul jàngaluñu ko kiñ jàngal te yareesu ko boroom xam-xam bu yàlla feeñalul tam bëgg a feeñ ak ku yaroo ci daara ju amul daa daara ju amul daa mënees na ca génnaale ay pexe waaye kenn du ca génneeg willaaya kon jaamu yàlla ak nu ngoo liggéey ku def sa bopp ku bàyyi sa bopp àjjana ak tiraanga ku la ni yomb na dala koo bëgg a xañ wërsëg ak xam-xam akum xel loo ci yóbbu fu ñu koy nawee boo ñàkkee fayda duutu yokk wërsëg ak xam-xam akum xel loo ci ëpp ne say bokk te doo leen si dimbali su bokk nga yàqoo yaa ko jiite kon wërsëg jëlu du mooy say bokk ndax tudd nañ ci sëg ba noppi bar sàq tuddul bar sàq ber sam sàq la kenn ku nekk da nga yegg xët sam sàq yor sa loxo loo ca fekk yaa ko liggéey juboo ba juboo jeexit jubóog fi jëf ci baax a ci gën kaneen koo mën a jubal bu ñu la dugalee ci bàmmeel ba suul la day ñibbi këram toog waaye boo jubóog sa jëpp fu ñu la tëral mu tëdd fa te dama ne àddina lu la ci xañ jàmm ba teelaa nelaw armeel yoo romb ko lu ko ëppalee nga ci ndax damay wax ni jongama ko mu tax a ñaaw ci kaw suuf loo yàgg-yàgg ci kaw suuf dinga nga dee jongama rooti ñu sange la ko dees na la suul ba mu amee at jongama judd sa ginnaaw kon jëru ko alali àddina ku mu tax a ñaaw da dem ba hôpital fekk fa boroomi carte grise ak i état ñu jox ko digg kaasi meew naan ko tëkku kon jëru ko boroom wërsëg wuy fan ak ñett lay àndal jongama ju amul kilifa texet mu nungu wutal liggéey doomi sëriñ ju xamul boppam ko yaara koy delloo ci bokkam jeexal ak wopp moo tax ñett war nañoo mooy ñett jongama ju nekk ci dëkk fasul yéene am jëkkër te lu xew mu bëgg caa jëkk am ku am lislaam war laa moyu borom wërsëg bu nekk cib dëkk te du dimbali kenn ku des gor war laa moyu koo xam ne askanu nga bokk kenn mu sia moomu dëkk bu ñu la defee buur kuy baadoo war laa moyu ndax jongamaa ko dal yem jàppal la mu lay fajal waaye bul bi ñi te bari na ku dóorul àddina te dangaa yurul yet wa te it nit kenn ku nekk kala konte lay kontar kam ci yow soxlaa lay suxlu kon sunu kër gee ka neex ku ñu ngàbbalu kon la ma koy wax foo fekk kuy xeebub dépasse da koo sàkkul te damay wax ni dara jàkku loos bu doon maye manto kon gëléem du tëdd biti te ngoro ñeent la kër ñeent jeega fay wàcc du am ñett la ngoro sa mbokkum ndey wala sa mbokum bay wala dekk ji yàgg ju la jukkoom neex mba ku te ay bokam nga te say bok lo ca fek bako ca lo ca dal nga muñ kërit ñent wàcc jabari tool jabari jilo jabari seetu jabari sën jigéen bu yoree ji koy tool tool bu yaatoo te nangu borom du fa gëj te bu ñëwee kontaan mooy jeeg bi nga yor ci kër gi di aw fi ko neex muy aw fi la neex su awatul fi ko neex du aw fi la neex kooku njaboot gu jigéen la koy